mooy soxla ñu deux cent cinquante mille masques yoo xam ni waroon nañ ko jox eh, élèves yaa ngi tijji te bëggoon nañ ko joxe te mënuñu ko ñu woo seeni i partenaire ñu ñëw jàppale leen ci jël suñu ay moyen bopp financé sunu bopp ñawal leen ko ba mu toll d'une valeur de cent millions may leen nag trois mois muy quatre-vingt-dix jours pour ñu fay ko yaakaar naa ni loolu kon partenariat bu amee kooku lépp lu mën ci partenariat ak yow de def na ko ñu xamal le maire Talla Sylla la léegi nag léegi nag ñun xamuñu ay ñun <laughs> som le maire talassé Sylla nga xam mom du génn Thiès dem Touba di di fi di ñun ñu bëgg am mo di jënd suñu di jënd suñu ay nak di Touba mom di dem bañu fi duñ ko am loolu mom di ko woor ni du génn di dem Touba di li ñuy laaj nak du nekkul di ñaar ñu di lu ñu liggéey lañuy di laaj te lepp lu lu mu leen jaral ñun suñu bakkan yi mo ñu gënal parce que dé suñu ci di mi mo ñu gënal ñu dé suñu di kër ak di tailleurs yi wax nañu maire déglu na leen maire tamit tontu na leen ñoom déglu nu maire si biir tontu boobu leen maire tontu tailleurs yi ñaan nañu ñoom dañuy delluwaat gisee seen biir pour revenir donc pour maire si maire pour mu ñoo xool ñoom décision bi nga xam ne moom nañu jël. ñu xamal conseil départemental de Thiès monsieur Idrissa Seck. dañoo liggéeyloo liggéeyloo tayiru Cees yi may nañ leen trois jours képp ku ñu fayul suñu xaalis. mandat yi ñaari mandat la woon mandat bu njëkk bi 15000 masques la woon mu nekkoon million millions 500 bi ci des nekkoon 10000 masques nekkoon 3 millions ñu fay leen bu njëkk bi à la veille de la tabaski boobu leer mu ñëwaat le lendemain de la tabaski ne ma vraiment maa ngi lay gërëm. di la sant ndax pression bi ma nekkoon wàcc na li ci des maa ko moomal sama bopp mën nañu xool nu ñuy def ba loolu yëpp ñu réglé ko ma ne ko luñ dégg nañ leen ko fay ci lu gaaw mais fan yi dafa am tension de trésorerie donc tey su toogee dans un point de presse ou bien benn conférence de presse wax ni conseil départemental dañoo ameel bay tudd président Idriss Seck ce qui encore montre encore une fois euh, mauvaise foi am di tudd président Idriss Seck dans cette affaire c'est-à-dire que il n'est pas animé de mauvaise foi xawma nak lan moko animé ou bien ci yane mobile nek wala ñan ñoo ne ci en câble wu diko ko waxloo xawma mom moko xam ñun nag dañoo jaboote ñep te li ñu defal ko du suñu xaliss bop dañ ko lepp te amna suñu nawle yo xam ne am nañu ay sens interdit mo do ñu jaar ci benn mbedd ndax lépp ay alol jambour ñi jaay ay ay terrain wu jàmbur pour def sen préfinancement yaakaaroon ni monsieur le maire day fay amel na regroupement de la télévision 28 millions amel cherché 20 millions amel millions les individus les li amel donc ce bëgg c'est moi. monsieur le maire na fay tailleur monsieur le maire dañu réaction trois jours Inch'Allah. trois jours Vous ko may bu réaction inshallah